aussi war nañoo seetlu ni ñuy defee seen uni bu ko defee ñu def uni une yoo xam ne dana tax nit ki bëgg jënd journal bi waaye jarul nga ci wane lu ñaaw loo xam ne dana tax euh, nit ñi aussi seen xel ñaaw ci ci ni nga ko defee donc euh, euh, du lu yomb nag du lu yomb am na journaux yu fi nekk yëpp yi ci ëpp ah journaux professionnels yi dañuy def titre yu nice yu rafet yoo xam ne dana méngoo ak li ñu bind dana méngoo aussi ak lu rafet boo ko defee nit ñi mën cee jëfandikoo waaye bu fekkee da nga def ay titre yoo xam ne daanaka dara nekkul ci biir danga ko def rek pour jaay loolu ab càcc rek la. boo rafetalee lu ne mën nga koo wax xam nga xas ak jëw ñoo yem ay baat na nga koy waxee la rek nit warut wax dara loo xam ne dafa dafa ñaaw da ngay wax lu rafet nekk dëgg ba pare rafet. parce que dëgg goo xam ne dafa ñaaw aussi na ko waxee dafa ñaaw amul solo donc da ngay rafetal ba pare je crois que boo defee dana tax nit ñi gën a ñëw ci yow parce que. di lire ba pare di gagné loolu amul sens bëgg nga aussi booy seetaan feex